على من علي ولا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 وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ين بوك جليل جنا بنو مسلو شي نام مكبوب للعنة الله عليه سنت سن برو سبحانه وتعالى بنو جند سيون الصراط المستقيم دي جولي دي سلمى سانغ من دي في علي الصلاه والسلام من لين دي نيو نيو بغنا رفعت دي نيو جليت السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته dellu si waat seen jotaay bii xam sa diine fii ci soxna yu baax yi di leen nuyu di leen ziar bu baax bàyyi xel gi ngeen di bàyyi xel seen jotaay bii di xam sa diine fii ci soxna yu baax yi ngeen ànd ci seen mbokk jili seen mbokki taalibi sayida soxna jaarali nga fas yéene ànd ak yéen ci li nga xamante ni mooy al iman bil kutub ndax ñu ngi nekkoo ak yéen ci jamono yi ba weesoo ci li nga xamante ni moo di xawaayidul iman te mooy ponki ngëm yi nga xam ne jullit bi war na koo làmboo ginnaaw ba mu duggee ci diine islaam ba noppi te bu ci jiitu moo di gëm sa borom subhaanahu wa bu wér dëggal ko ci sa xol ni nga koy tuddee ci sa laamin mu dëggoo noonu ci sa xel sa xol ak sa xel yépp waaye itam nga seede it ne muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla la waaye yonent bi yàlla la waaye ginnaaw bi nga gëmee ñaari baati seede yooyu ba noppit nga gëm ne kat jaami yàlla lay wax jaami yàlla la ñuy wax xam ne yàlla moo leen bind yàlla moo leen sàkk ñu nekk ay jaami yàlla yu sell yoo xam ne ma leen suñu borom subhanahu wa taala bindee ba léegi mosuñoo mooy suñu borom subhanahu wa mooy ba leen suñu borom subhanahu wa taala bindee ba ba tey ku ci nekk lala la sunu borom subhanahu wa taala santoon yaa nga cax mosoo ko mooy benn yoon mu nekk ay jaam yàlla yu sell yoo xam ne foo leen fekk rek ñi ngi sampal seen boroom mooy seenuk lekk waaye sell seen borom mooy seenuk naan ñu àndoon ci yéen ak yéen ci yow jotaay bi passé kon tey ñu war a ànd ak yéen ci li nga xam ne mooy gëm téere sunu borom subhanahu wa yi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala daan na koy wàccee ci ndawam yim daan yónni ci mbindeef yi ndax kat sunu borom subhaanahu wa wàcce woon na ay téere yu bari waaye nag mu am ñeenti téere yoo xamante ne nii moo ci gën a siiw ndax sunu borom subhaanahu wa taala kat wàcce loon na kii di sayyidina Adam mooy sunu maam Adam alayhi salaam ab téere waaye itam noonu la ko wàcce loon doomam jooju di siisa waaye itam noonu la ko wàcceeloon Seydina Idris waaye itam la ko wàcceeloon xaritam bii di Seydina Ibrahima alayhi salaatu wa salaam waaye mu am ñeenti téere yoo xamante ne nii kat ñoo gën a siiw ci téere yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa wàcce woon na ko te moo di téere bu ñuy wax tawraat waaye tawraat nag kan la ko wàcceeloon Seydina Moussa alayhi salaam wàcce woon itam téere boo xamante ni moom la ñuy wax linjiil linjiil it kan la ko wàcc wàcceeloon Seydina Isa alayhi salaam waaye ba tey itam muy wàcceeloon Seydina Daawud téere bu ñuy wax Zabuur kon ñetti téere yooyu mooy yi nga xamante ne nii moom la wàccee loolu ku ci nekk yonente bi bu ma bu ma ci nga xam ne moom laa jubju muy tawraat Seydina Muusa lañ ko wàccee loon injil itam Seydina Isa lañ ko wàccee loon daa zabuur Seydina Daawud alayhi salaam lañ ko wàccee loon alquranul karim nag moo ci mujjee wàcc lañ wàccee loon ngën demi def ñeenti téere yooyu ñoo ci gën a siiw muy tawraat linjiil Zabur pour alquranul karim wa huwa azamuha wa alquranul karim moo ci gën a màgg kon jullit bi ni mu gëmee ne yàlla rek mooy yàlla kenn bu yàlla ko dul moom noonu la war a gëmee yenente yi alayhimu salaatu wasalaam waaye itam noonu la war a gëmee malaayka waaye ba tey itam noonu la war a gëmee téere yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala wàcce woon waaye ginnaaw bi mu gëmee téere yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala wàcce woon ci yeneen yonente itam na gëm na kat alquran moo ci mujjee ñëw waaye alquran it moo ci gën a màgg waaye alquran itam mooy téere bi nga xam ne li téere yi indi woon lépp moom indaale na ko lépp loo xam ne tawraat indi indi woon na ko wala injiil indi woon na ko wala zaboor indi woon na ko mu alquran indi na ko ba indi sax loo xamante ni téere yooyu la indi woon ko woon loolu lépp jullit bi da ko war a xam gëm ko xam ne téere yi téere suñu borom yoo xam ne moo ko wàcce woon ci ndawam yooyu kon al iman bil kutub mu ngi bokk ci qawaidul iman mooy gëm téere yi nga xam ne moom yàlla wàcce woon ci yonent yi mu ngi bokk ci ponki ngëm yàlla yi kon ñu indi leen loolu ci li nga xam ne mooy téere yi nga xam ne moom la yàlla wàcce ci nente yëpp ne jullit bi da koo war a wér waaye mu gëm ne alxuraan kat moo ci gën a màgg ñu indil ko it ki nga xam ne moo gën a màgg ci mbindeef yi gën a màgg ci yonente yi alayhi salaatu wasalaam mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon alxuraan daal moo ci gën a màgg ci gën a màgg te it lépp loo xam ne tawraat ak linjiil ak zabur indi na ko rek alquran karim indi na ko indi na it loo xamante ni tawraat linjiil ak zabur indi wuñu ko woon mu nekk téereb suñu borom subhanahu bi nga xam ne moom la ñu sayyidna muhammad alayhi salaatu wasalaam indil ñu di ko jàng di ko seetantal di ko bàyyi xel lool ndax ci la mooy suñu téere bi nga xam ne ci lañ war a sukkandiku ndax mooy gëna a màgg te ko suñu borom subhanahu wa taala ñëw fi ci ñu suñu si Seydina Muhammad alayhi salaatu wa indil ñu ko muy alquranul karim bi nga xamne wa rahmatul lil muminina yërmande la ci julit yépp mu alquranul karim kon lii la ñu lo ci al iman bil kutub ñu dëgmal nak bis bo xamne bisu bu gën bu mag la ci julit yépp di ay adha di fetu tabaski ñu war ci jangal lu bari du jaagi ne rek dañuy profité ci ay euh, mbiri àdduna waaye dañ ci bàyyi xel lool ab jullit nu mu war a fonke ndigalal boroomam subhaanahu wa taala waaye jigéen it ni mu war a fonkee ndigalal borom këram waaye doom it ni mu war a fonkee ndigalal waaye jur ndax yaakaar naa dégg ndigal rek moo waral jullit tabaski ndax Seyna Ibrahim mi nga xam ne moom Seyna Ismaayil ñoo waral jullit tabaski gii kat muy Seydina Ibrahim mi nga xam ne xalilullah moo nekkoon xaritu sunu borom subhaanahu wa taala bi nga xamee ne dund na lu yàgg ba màgget te amul doom mu yoroon soxna su tuddoon soxna Saarata muy soxna Saarata moom ñu ànd yàgg waaye sunu borom subhaanahu wa taala joxu leen woon takk ndeer waaye bi nga xamee ne soxna Saarata mu ngi yoroon soxna su tuddoon Haajara mu jox ko Seydina Ibrahim far yàlla dogal ñoom ñaar ñu am doom doom joojule nekk Ismaayil muy. doom joo xam ne mu Seydina Ibrahima njëkk am mi nga xamee ne suñu borom subhaanahu wa taala seen digal na Seydina Ibrahima pour mu rendu doomam joojule Seydina Ibrahima ñëw wax ko doomam jii Ismaïl ne ko sunu borom subhaanahu wa taala daf maa digal na naa la rendi lan la ko Seydina Ismaïl tontu. yaa abati faal maa tuuma sa tajidu nii incha allah mina saabiriin yow kat sama waajur defal li nga xamante ni nii kat moom la la suñu borom subhaanahu wa taala sant ndax bu soobee yàlla di ma fekk ba bokk ci muñkat yi nga gis ne kat xale xale terewul jëfe ndigalal sa waajur waaye xale terewul nga jëfe ndigalal sa borom ba sëy naa Ibrahim tëree bay waaja dawal paaka bi rek fekk ma nga takkoon ay bëtam takk ay biti doomam di sëy naa Ismaayil waaye sunu borom subhaanahu wa ci yërmandeem rek la daal di yebal Seydina Jibril mu jëlee am xar ca aljana roof say xëcc roof fa xar ma nga xam ne Seydina Ibrahim ba muy rendi sax jàpp na ne doomam la rendi waaye bu mu tekki ay bëtam ba xool ndekete gis na ne kat xar la rendi na ko doon tey jii ku ne rek yaa ngi fas yéene xool koy fas yéene tabaske ci njaboot waaye loolu lépp rek day dellu ci yërmande sunu borom subhanahu wa taala nga gis na kat Seydina Ibrahim li muy ñàkk ñàkk doom ba yàlla may ko benn doom boobu ne ba ko yàlla digalee ngir mu rend ko hésité wut amul lenn lu mu ciy xaar waaye amul lenn lu mu ciy def waaye daa dem jëfe ndigalal sunu borom subhaanahu wa taala waaye nga gis ne doomam jooju kat ba ko ko bàyyam waxee amul lenn lu mu ciy dellu ginnaaw amul benn xoolu yër yërmande bu muy xool ci waajuram bu góor woowule wala waajuram bu jigéen woowule waaye dafa ne dafa daa def rek ndigalal sunu borom subhaanahu li ñuy am am yërmande ci suñuy doom wala li ñuy am am yërmande ci suñuy waajur suñu borom subhanahu wa taala moo ñu ëpp yërmande fuuf ci suñuy waajur ak suñuy doom waaye lan moo am solo ci jullit bi mu jëfee ndigalal suñu borom subhanahu wa taala waxtu ko suñu borom subhanahu wa taala nattoo ci dara rek mu ko muñ rafet waaye gëm na kat lii suñu borom subhanahu wa taala moo ma ko sant waaye gëm na itam lii suñu borom subhanahu wa taala moo ko digal moom ma ko nattoo loolu lépp rek ibra seyna ibrahim jox ku mu joxoon suñu borom boppam waaye bëgg gu mu bëggoon suñu borom bàyyee gu mu bàyyi woon suñu borom boppam moo waraloon loolu lépp mu jëfe ndigal suñu borom subhanahu wa taala ba tey itam nga gis ne foofu it xaleet ni mu war a jëfee ndigalal boroomam waaye ni jëf nang waree nangoo jëfe ndiggalal waaye juram ndax ñun kat am ñu lu dul suñu waaye jur yi ginnaaw bi nu suñu borom subhanahu wa taala bindee ba noppi itam fan lan la ñu wax ñu jaamu ko waaye itam wa day waalidayni ihsaana ñu rafetal ci suñuy waajur lépp loo xam ne jullit bi waajuram sant na ko ko rek da day waadu war na bërit def ko ci saase am lenn lu mu sikk sàkk wala lenn lu mu xool rawatina waajur wi nga xamante ne nii kat dalaa teg ci yoonu siraatal mustaqim du la digal lu dul li la yàlla di digal waaye itam du la tere lu dul li nga xam ne moom la la yàlla di tere kon waay waajur nekk na loo xamante ni nii su la digalee dara rek rawatina lu jëm ci sunu borom subhaanahu wa taala rek bu ci am lenn loo ci discuter wala lenn loo ci xalaat waaye danga koy daal di def ci saase kon ngeen gis na kat Ibrahim digal nangu ndigalal sunu borom. moo waraloon loolu le waaye Ismaayil it nangu jëfe ndigalal waaye juróom moo waraloon jëf jooju le nga gis na itam jigéen ku war a digal déggal boroom këram ndax soxna Haajara kat bañ ba mu amee lu dul benn doom boobu rek ñu war koo të tër rendi ko amul lenn loo xam ne euh, bañ na ko ci lu dul ne dafa nangul boroom këram rek li nga xam ne moom la ko sunu borom subhaanahu wa taala sant nga gis ne jigéen kat dafa war a bàyyi xel ne borom këram moo def sangam waaye borom këram itam ci la yoonu ngërëmu boromam nekk ndax bala ngay am sa ngërëmu borom kat danga koo jaay sa borom kër rawatina borom kër bi nga xam ne yàlla rek la lay digal yàlla wax yàlla rek la lay digtal yoonu yàlla rek la lay digtal ci yoonu siraatal mustaqiim rek la lay teg di la digal li la yàlla di digal waaye itam mu lay li nga xam ne neexul sunu borom subhanahu wa taala ndax jigéen kat dafa nekk loo xam ne mooy magasin suñu borom subhaanahu wa taala ndax tey fii képp koo xamante ne baax na fi rek moo xam xutbu zamaan la wala mu di wala yi mu wala mu di yonent jigéen moo la jur te jigéen jooju kat juru xutbu zamaan bi wala mu jur wala yiw ba la mu daj ci borom këram. amaana tey jii moo waral mu loolu le moo am teraanga jooju le wala moo am cër boobu la ci sunu borom subhanahu wa taala ba sunu borom subhanahu wa taala jaar ci moom ab yenente wala ab bu zamaan wala ab wàll yu kon jigéen ñi nañu takkaat suñuy laxasaay fës góorgóorlu ci suñuy sëy xam ne kat jigéen amul lu dul borom këram ndax bu ko borom këram gërëmee rek suñu borom subhanahu wa taala da koy daal gërëm. ndax sun yonente bi alayhi salaatu wasalaam kat moo ñu indil xadis boobu ne jigéen su jullee waxtu juróomam woor weeru kooram sàmm boppam bu dee bu deewee àjjana la jëm mu ne itam topp boroom këram su deewee àjjana la jëm mu waxaat ne itam jigéen su faatoo te boroom këram gërëm ko rek aljana la jëm mu nekk ñaar hadith yo xamne gën di mindeef mi nga xamne du waxantu mu ñuko indil kon rek hadith boobu war nañ ci tonku bu baaxa baax gëna fet dalé suñu laxasaay gëna jaayante jaayanteeg suñu borom subhanahu taala ba liggéeyal suñu borom kër lo xamne ëlëk teranga lay doon ci suñu njaboot way ëlëk itam teranga lay doon ci ñun ëlëk yowmal khiyam ndax borom kër kat du du du du kon nañ bàyyi xel ci loolu bu baax te jigéen dafa war a xam boppam ndax sunu borom subhanahu wa da koo teral jigéen mooy ki nga xam ne moo sunu borom subhanahu wa moo ko njëkk moo ko jox gëddaam ndax tey bu jigéen juddoo nekk ci jàmmam nekk ci salaamam kenn reyu ko islaam moo ko waral kon loolu lépp ñu war cee bàyyi xel ndax jigéen kat al madrasatul ula mooy école bi nga xam ne moo njëkk ci doomam. te waykat baa ngi naan al ummu madrasatu isa ahdataha ahdata shaaban mu ne jigéen kat école la boo xam ne soo ko soo ko defaree rek yaa ngi waajal population maanaam yaa ngi waajal société boo xam ne bu am solo lay doon kon ñu jigéen ñi nañ bàyyi xel ci loolu bu baax te xam ne islaam teral na jigéen waaye lislaam lepp lo xamne gëdd bu bu jigen am tay ji rek islam moo ko jox waye itam limi am am gëdd ñu baye xel ne kat goor ñi ñoy suñuy sang ci goor ñi rek ci lañ mëna a tarbiyaw ci lañ mëna a feddale laxasay jaayante ak suñu borom ba liggéeyal suñu borom kër ba ëlëk ñu mëna am way wu rafet mëna am njaboot ak Islam bu barkel te mënuñ ko jaar fu ci fudul ci sunu suñuy borom kër loolu lepp nak mu nekk lo xamne lu wara war ci ci feet bii di ñëw muy Aïdul Adha ne bu ñu xool ne rek feet la boo xam ne dañoo war a ànd noos rey suñuy xar lekk dëgg la lool am na ci waaye itam ñu bàyyi xel ne kat nangu ndigal moo waral tey jii bis bi am ci kan ci Seydina Ibrahim nga xam ne mooy mooy jur yonent yàlla Isa yonent yàlla Ismaïl Seydina Ibrahim bi nga xam yàlla waaye itam nangu gum nanguloon sunu boroom ci rey doomam jooju ci la lii xewee waaye itam ñu bàyyi xel itam ne xale dégg gu mu déggoon ndigalal waajuram tey jii moo jur lii ndax moo nanguloon boroomam nangul waajuram ba tëroo tëddoon bañ naroon koo rendi waaye ciir ma ndey sunu borom rek mu xëcc Ismaayil rof fa am xar ne konoon tey jii mënoon naa demee na nit ñu boobu la boobule waaye itam ci jigéen nangu gu mu nangul borom këram muy sëy soxna Haajara moo tax ba tey loolu lépp ñu war nekk ay leçons yoo xam ne war nañ ko cee jàngaat ginnaaw bi ñu feetoo itam lekk suñuy suñuy suñuy xar sol suñu yére yu rafet ñu bàyyi xel ne ab bisu jaamu yàlla la itam ñu jaamu ci yàlla jànge ci nit ñi mu war a déggee ndigal ni mu war a toppee ñu leen di jox dikk daje ci beneen jotaay ak beneen waxtaan incha allahu taala baaxu daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala Kocc TV ëttu soxna yu baax yi page yu ñëpp la mu ngi lay ñaan nga aimé sa page Facebook abonné sa chaîne YouTube te yaatal koog say xarit ak say am di jàmm page TV ëttu soxna yu baax